What up guys? What up guys? What's up everybody? Some guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa. Rio City, my town. You <laughs> go my pub J, Ibrahim Ndao. Mustafa Mane good from Belgium. You go my Abakar Jallo from Russia. You go my his elder Ismail Jallo. You go my guy Biggie Malachon TV. Ma sama guy. Ma tay may laaj, ana may laaj. De grâce nak dig natuma. di ngatuma de bu leen ma yóbbul samay propos fu mu demul damay laaj am just asking questions Sénégal moom soo waxee rek ñu bëgg la sonal quoi naan non day dingat kii pare dingatuma kenn am just asking question li may laaj dafa simple lenn la mooy Macky Sall dafa bàyyi ba màggal gi du waaj a ñëw mu déconfiné hygiène fil euh, dindi xamal lan distanciation bi xamal dindi xamal mais lu su ma dem rek mooy euh, ubbiwaat na soirée yi defar affaire yi quoi léegi damay laaj ndax président bi dafa daw dafa daw lay laaj dafa daw ndax président bi dafa daw quoi quoi il s'est jeté à la rivière avant qu'il ne pleuve quoi parce que tey am na deux obstacles yooyu xaar muy yan muy muy muy ak ak bi tu vois te ñaar yëpp bu jegee ji am pression tu vois gars ne dañuy màggal bàyyi foos te loolu moo am màggal bi kulli allen day am bàyyi foos day am waaw dañuy màggali moom mënu dara màggal Macky Sall moom bi bañ a jàll gën a yomb tey ji mun a euh, mun a màggalu da màggal day am donc moom xam na ne gars yi sa Film sama mbokku dañuy màggal par force dara mu leen ko tere waaw dañuy màggal par force donc moom moo may conseil xam naa conseillé na ko ah monsieur le président hmm? gi ñëw après ñu ne leen ça va léegi ku nekk ñu la zéro quoi mun te looloo am that's real looloo am nam seen loolu mooy dëgg bi quoi tu vois donc le président il a euh, parce que tamit dese na benn obstacle tey ji muy maanaam gàmmu gi tu vois mënoo bañal ñii nangul ñel la tu vois il faut mu ko tu vois donc loolu la quoi donc le président a dafa daw quoi tu vois il a fui quoi tu vois le président il a fui <laughs> shout out to the Murid to all the Murid you shout out to them tu vois ils, ils se sont fait comme craindre tu vois ils se sont fait craindre quoi tu vois ils se sont fait craindre quoi rien nañu ba sen sen sen sen sen seen seen seen doole ci réew quoi c'est bien quoi parce que nguur gi ñu yor moom ci kaw moom yaakaar naa ni faut ngay réagir foo ngay réagir parfois comme Murid quoi il faut nga réagir comme Mouride, œil pour œil, dent pour dent, on a passe-passe, n'est pas force les nerfs. C'est ce dont, c'est ce dont le, euh, le président a peur. xalaat mhm. ne am na benn groupe ils sont prêts à tout pour leur croyance loolu nag bu ñu ko murid yi aaloon tey jii bu ko aaloon tey jii gars yi patriotes yi sonko ni ko mënoon tuuti rek a gars yi nit fichier électoral bi dina tegu si yoon ah ah élection yi dina clair mais amul tout temps rek mooy li sonko di wax si discours bu mu demee fële Casamance yenn ñi yenn yenn slogan yi ñu rey quoi ay lu sàpp yàlla jeex ku matal dem yàlla baax na moo moo ñu kii quoi mais bu ñu amoon pas-pas bi murid di am et je les salue quoi parce réussi là beaucoup de personnes ont échoué quoi mooy maanaam tey ji ñoom seen i affaire koy def te du leen ci fekk dara du leen ci fekk ah dara du leen ci fekk parfois sax ñoom seen affaire dañu koy def ah président bi may xool nu muy tegee ay plan pour jéem a rafetal mais ñoom li ñuy wax dañu koy def dañu koy def dañuy màggal dañuy màggal cette cette abnégation cette décision cette croyance bu ñu ko amoon rek tey jii waa Pastef yeeg gars yi par parloo kii ñëw rek am am am ngëm googu su ma ko mënoon loué ngëm ngëmu murid yooyu su ma ko mënoon loué ba jox ko booy patriote patriote yi gars yi ñëw dem quoi vraiment Sénégal dina neex quoi kon Sonko dina falu quoi mais xam nga rek bu ñu sàccee élection kenn du réagir su fichier baax baaxul kenn du réagir tu vois bu Aliou Ngouille Ndiaye ñëwee ne mooy nekk ministre mooy mooy superviser euh, élection yi kenn du réagir non ko non lay demee quoi motax mo moo né ne Sonko bu mu fallu bi dinañ ko parce que pass pass bi mouride am ak ngëm-ngëm yi ak lu mu leen jaral ah yi nan seigne touba na la ko jaral Sonko na la ko jaral boobu boo moon rek mun mu neex quoi sa moon rek mu neex tu vois donc man sala tu old mouride vraiment gëree ngeen quoi vraiment ay gëree ngeen quoi créé ngeen déconfinement par force waaw à l'approche du magal créé ngeen déconfinement bi par force ah involontairement xam nga involontairement involontairement parce que mënu né quoi mënu né c'est ridicule parce que mon conseiller li ko wax moy manam tay ji mëno dem Touba ay 3 millions de fidèles ou 2 millions de fidèles dajé Touba nga naan di distanciation jàkka jooju sa mba loola tàncox loola donc distanciation mu ngam donc c'est serait ridicule très ridicule qu'on aille au Magal et puis qu'on revienne nga naan distanciation alors que fële na le disañu ko mënoo tere lamb té public bu gëna ëpp lamb moy dem Touba mëno téré ay soirée té public bu gëna ngand ay soirée ma dajé Touba donc gaay dañ ko président président si intelligent moy wañul kaay ya Magal bi après nga ni feebar mi ngi xaw disappear et eh, mooy am quoi donc la fa demee tu vois noonu la fa demee tu vois il a fallu le màggal pour ñu xam ne affaire bi c'était du cirque quoi il a fallu le màggal pour ñu xam ne tey jii moo nañu waroon nañu déconfiné bu yàgg quoi thanks thanks thanks to all the Murid community thanks waay merci waay bëgg naa trop quoi vraiment vraiment bëgg naa ci Murid quoi au moins ñoom ñu ñuy ñu dindil nañu kii bi kii bi écartement yi yoo xamante ni deux mètres ay takka masque ma lépp bi yooyu Murid ñu ngi koy dindi quoi merci waaye Mouride waaye vraiment yéen si màggal gi yéen a ñëw màggal gi waroon nañu yëg sa gi dafa doon ñëw si période confinement bu bi foofu la waroon ñëw rek mu gën a neex waaw Mouride yi xëccoo ko moom dóor ko mu jéeg confinement bi nekk benn une semaine waaye màggal gi yéen a ñëw waaye màggal gi yéen a ñëw trop waaye hmm, waaye màggal ma la màggal nous a yee màggal c'est de fruit le président et son gouvernement ont reculé ils ont reculé they go back you know what I'm saying ils ils ont créé reculé ni ñu parce que xamna nañ bu ñu carrément les lâches quoi ils ont créé des chiffres wañu to e, e bi ni après jekki jekki waa ni mais vous avez reculé ni naan passe passe bobu mouride am gars am ko quoi wa passé fi gëm jaral sonko jaral len ko ñu jaral wacc faat ko xex ko quoi parce que li c'est un signe quoi ci lañu wara jang quoi bu ñu dugg woon rek jaayante avant élection ñu duñu élection tant que fichier bi baaxul Aly Ngouille jaay day wacc par force am passe passe comme ni mouride am léegi Sénégal tegu ci ay ray mais yalla baxna ku sapp yalla jeex maki nii maki nii <laughs> bëggee une fois de plus Penda Fall bëggam ba Sonko Cheikh Moyinga euh, bëggee Gilches depuis UK gis nañ dëgg ma bro amee seen dans cinq dolen ko sama ñaaw génn ma la ci am maawut